tú me mbokk yéen xarit téléspectateur de Dental TV ñu ngi baax a baax di leen ziar gars Lay kay gujub gars yi fi nga xamante ne tey moom mooy Tivaouane Peulh ñëw def li nga xamante ne ni moom mooy concert u Laye Lodia bi euh, découvrir ko xam la carrément Laye Lodia tey fi war a def tey mu nekk 15 mai tey mu nekk concert bu mag ñu ñëw tey fi nga xamante ne moom mooy Tivaouane ñëw fas yéene découvrir lan la Laye Lodia a def ci li nga xamante ne moom mooy concert bi tey gars man maa fi ak ki nga xamante moo lay jox image bi Brick Lay moo yor li nga xamante ne moom mooy maay dañuy dugg ci biir ñu xool la la am xool lan moo nekk ci biir gis ngeen ci biti nu mel ah nu mu naayisee mu ngi kóol dañuy dugg si biir xool concert bi la la laaj ak gars yi fa nekk let's go ma niggas atuma seen atul benn la si ñoom te ñaan leen ci moom yaayam bëggoon ko lool atul ko gënal oor yow sonn si moom lool depuis ba muy nekk booy manqué wul dara xiiful maru reflé wul tamit iPhone 7 lay doxoon to vacances yi pare Marseille du soleil ok tey ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Tivaouane Peulh bu baax a baax di leen ziar Ser Dental TV ñu ngi leen di bëgg baax a baax Brick tey maa ngi ànd ki nga moom mooy Gora Waga bi moom moo lay jox image bi Brick moom mooy bi instant à ce moment ci di bëggee gars yi tey nag ñu ngi fi nga ah, bi nga xamante ne moom mooy ñu ñëw pour découvrir tey lan la Laye Lodia war a def fi nga xamante ne moom mooy Tivaouane Peulh fii tey ñu ngi ci biir concert bi gis ngeen bi commencé na ñun ñu ngi tey fii nga xamante ne moom mooy ci concert bi tey dañuy jël lépp loo xamante ne mu ngi ci concert bi koy def dañ koy jël brique ngeen di am en ce moment waga bi ngay am ci li nga xamante ne moom mooy image bi da nga may topp ñu am ay image quelques yu ñu jël brique la gaay ekay gujub gaay let's go day dude moom mooy concert u Laye Lodia bi ah tey ñu am fi waa MPG ah, ay membre la mu doon ñaa xamante ne ñaar lañ damay bàyyi kenn ci bëgg naa mais delloo bëgg bàyyi yow yaa kan def ka kan el boy mu meen ok ñu fekk leen ci li nga xam ne moom mooy concert u Laye Lodia bi lan ngeen sekk ak Laye Lodia non ñu ngi koy ko gërëm ni ko ñaanal na ko feet ay ati ati at yéen depuis kañ yéen a ngi si rab bi non peut-être deux ans rek ñu deux ans quoi ay laay may leen saas invité leen waaw lin ah yàgg nañ ñëw ay cons de. nan tey lan ngay wax tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan à travers Dental TV. yee maa leen di jaajëfal di leen saaw dab bi wér di leen wax ne tey Lalo Dia moo xew la yaa ma a naw ñu jaar fi yaa ma gën a naw def fi quelques traces yaa ma a di leen jaaf di leen jaajëfal baax a baax ah ñoom tamit ay jeunes lañ bu li nga xamante moom la ñu ba tey ñu ngi ci bi gars yi topp ma jël beneen artiste.

Eh, maa lay ziar Biril. Fadel tey nga ñëw tey ci li nga xam ne moom mooy concert u nan nga gisee tey waa Tivaouane Peulh ak concert bi. waaw Tivaouane Peulh moom chaque fois dañuy kontaan si ñoom parce ñoom moom bon boo leen yëgee ñu yëg leen même boo leen yëgu sax des fois mën naa ne bëgg seen bëgg ak xam nga lu xew ñoom dañuy ñëw participer dooleel la xam nga loolu moom bon Tivaouane Peulh la baax fekk baax quoi macha allah. mais tey lan nga gisee concert u musique d'une manière générale mi ngi fiy dox. parce que dama dégg ne fii nii moom bi quoi moom mooy capitalu rap. da man nag du ma rappeur. mais mën naa ne côté noonu moom RAS quoi. RAS ak ki mën a wax yow moom bon man nag musique laay def quoi d'une manière générale. ok lay bàyyi nga béyee xam ne ñoo ñooy seetaan à travers la Dentale TV lan dama leen di wax ni ñu gën a jàppale seen i nga art dafa métti métti boo xamante loolu lu benn mën ñaar moo ko dàq quoi. dañuy jàppale artistes yi bu baax baax baax am na ci solo quoi macha mu nekkoon ki nga xamante ne moom mooy Fadel Gaye dañuy dem jël beneen artiste beneen kaana beneen daanaan rang ok ba tey fi nga xamante ne moom mooy concert u Laye Lodia bi ma am fi nga xamante ne moom mooy NTK naa la waaw ah, naa la Dieng naka mu mu ngi cool naa sant yàlla tey ñu gis la ci li nga xamante ne moom mooy concert u Laye Lodia bi tey lan nga seek ak Laye Lodia ak lan mooy rab moo ñu boole mais instant nii nekkatul rab quoi ay gaañ leen dañuy demalante day ñëw sama gàllam ma ñëw gàllam kon xam nga boo xewlee dama a ñëw quoi des lu ma si mën tey lan am na gars yoo xam ne ñu la Dental TV lan nga leen la laa ni wax on fait le feu rek ñoo gis ni ñu ne ni ñu mel xam nga ni laa la yaa naanaan la bu wootee yaa yi koy tàngalam amu ragal kon ñu bàyyi la ngay dem yéeg dem yëngal si kanam dem yëngal ko si kaw Oh. xamante ne ni moom mooy concert wu Lailou Dia bi tey ñu daje feeg daanaan bi nga xamante ne mu ngi tudd Tamzo Appellas Tamzo bëgg naa la. yow sure bro bëggee maan xës brick. Eh, mu ngi cool ah. ngi direct fi nga xamante ne moom mooy Dental TV dama lay bàyyi nga bëggee gars yi nga xam ne ñoom ñoo ñu seetal. asalaamaaleykum salaamaaleykum di shout out ñëpp di shout out waa Tivaouane Peulh di shout out waa Dental TV di shout out sama waa team Esprit yëpp ak wóolu waayet képp kuy représente hip hop Galsen loolu laay nuyoo tay yang ci concert bi quoi yang ci concert bi ñu gis tay nga ñew ci concert wu Laye Lodia bi lan mo fi nekkon ay tànk ki nga xamantene moy Tafzo Abalas. ye man gëna doli wat sante yalla buñ ko wajale ba fekke bis bi xam nga di njëkkee ci Laye Lodia di ko féliciter parce que lu melni ni ko dafa metti quoi boy la ñëpp gis na li nekk di job di ko ñaanal yalla mu jëm kanam. mais ñu nak dañ ñëw pour apporter tamit suñu touche parce que xam nga c'est pas la première fois ñu yaag ngi ñëw concert fii diko pëndal mais tay day gëna pënd. dañuy gis beneen facette pour Tabzo Appellas. lan ngay wax gars yi nga xam seetaan à la zone TV pour tëj quoi pour Dental TV yee di bëggee di wax ni Tabzo Appellas la from Esprit Squad ñu xaar projet xaar ay single yu bare bare bare ak ay clip parce que xam am na loo xam ne mënuñu ko wax mënuñu ko révéler fët fët mais ñu ngi ci liggéey bu méttee métti métti na ko xaar. na ko xaar mu nekkoon ki nga xamante ne moom mooy Tabzo Appellas moom la ñu am ki nga ne ni moom mooy ok ba tey ah, ñu fi nga xamante ne ni moom mooy concert wu Laye bi ñu ngi Tivaouane Peulh maa am fi ñaari ndaanaan ñaari kaana ñu ngi tudd waa High Lyrical gars dama leen di bàyyi ci bége naa la jo yee bége bril ay naka mu ngi cool yee tawfeex mu ngi baax yaay ji wala yooyu ji mën a waaw yaay ji mën a ok ji te yaa ngi en live en direct fi nga xamante ne moom mooy Dental TV lan nga xam ne ñoo lay seetaan ak concert bi nu fa demee waaw di bëgg gars di bëgg people lu tipi parce que people hip hop la ñu ngi téwal hip hop quoi di leen ziar ñom ñëpp. ok tay am na ñoo xamante ñu ngi lay bëggee yàgg nañ bëgg a gisanteeg yow lan nga leen di wax à travers la Dental TV. waaw waaw à travers la Dental TV d'abord abord mën nañ ma gis ni mais après inshallah yalla yàlla baax na quoi buñ défé defee rencontre rek. dina gëna yaatu ah. inshallah ok mu nekkoon ki xamne mom moy moom mooy ji ma damay ñëw sama joo bi bëgg naa la. waaw mi ngi naaj ah. sens. yaay kan si gars yi. Flanky. yaay Flanky. <laughs> waaw gisoo noonu la demee woon. Ah. yaa ngi ci live en direct Tivaouane Peulh Dental TV dama lay bàyyi nga bëggee gars yi. waaw ñu ngi siyaat ñëpp ah. voilà di nuyu képp ki nga xamante ni teewoon na ak ñi amoon yéene pour ñëw te mujj ñu ñëw quoi. di leen wax ni c'est highly lyrical. ok lan ngeen di wax ah, Laye Lodia mi nga xam ne moom moo leen invité ci concert. di ko di ko di ko shout up ko wax ni job bi mi ngi nice quoi affaire yi loolu la quoi. boo nekkee jeune da ngay jema innover di def dara comprendre nga di jema tek ay pas quoi te mom gis nañ ni mi ngi ci yoon bobu donc nuñ ko shout out du respect diko wax ni voilà quoi mi ci lancer bi ok mu nekk mu nekkoon ñi nga xamne ne moy wa waa xaali ñom lañ amoon ñu dëkk fi nga xamantene ne moy lagros di len bëgge baax di len wax ni carlem mom ma jël benen artiste benen kana gaay nice man Yeah. Hey. xamante ne moom mooy Tivaouane Peulh ci concert u Laye Lodia bi ñu am fi benn joo benn gaa boo xamante ne mu ngi tudd Dame Ciss Dame Ciss bëgg naa la bëgg na sa birig naka la yaa ngi cool mu ngi baax waaw sant yàlla alhamdulilah tey ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy concert u Laye Lodia bi ñu gis la fii tey lan moo fi nekkoon say tànk ye ñëw xam nga rek pour soutenir Laye Lodia xam nga pour joxe lépp lu ñu mun ko wax parce que Tivaouane Peulh la ñun ñëpp ñoo bokk xam nga affaire dañoo bëgg a boose mu gën a dem si kanam te juste loolu la quoi ko ayee ñu defal la lii tamit mooy loolu tey lan nga wax gars yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers Dental TV lan nga leen di wax ak gars yi nga xam ne ñu ngi lay bégee

Durma durma. fépp kenn amatu a ngi xaar suñuy lal ay a ok ba ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy concert u Laye Lodia bi tey ma am fi ñaari gaa ba ñett ah. ñu nekk ki nga xamante ne moom mooy PBN Massa ak Mr Veli ak ki nga xamante ne moom mooy LPK ñu bokk ci li nga xamante ne moom mooy tim ak Kunaama Taata. pii bëgg naa la. maa ngi lay siyaar pii ma gis sa tey nga yeg ci kaw concert bi gars yi yuuxu tey gars yi bëgg la nu mu fa demee. waaw naa nice na parce que loo xam ne liggéey su setee rek xam nga aajuwul nga indee population pour ñu bëggee la ñuy siyaar la liggéey su après gaa ngi apprécié naas loolu nga gisee quoi. ok mais tey lan nga boo xam ne bon xaw ma ko si yenn détail mosuma ko dégg si yenn ñu toog ñu indi ñu invite xam nga ñu ne pourquoi pas ñu dem suñu part moo nekkoon nii ah wan ko du doon saw daap aussi dinañ ko sa kaw sa kanam dina. dina ki nga xamante ne moom mooy Dental TV dama lay bàyyi nga bëggee leen nga bu daa wax sa yaa di bëggee di leen naan initiation bu nice la jàpp taw bàyyi dina baax dina ko incha ok lin veli bëggee naa la yee daloo bëggee monsieur yaa ngi direct fi nga xamante ni moom mooy Dental TV ñëw mais nekk na lu rafet quoi maanaam lu rafet la maanaam tey dafa nice nga gis Mr P Mr Veli ak LBK si kaw scène bi nekk na loo xam dafa nice quoi ñoo ngi si encouragé bu baax a baax. jaajëfatee ok jaajëfatee Lune Bélé ah damay bàyyi LPK LPK lan ngay dugal si kaddu lan ngay wax ci li nga xamante ne moom mooy gars yi. yaa wura meen bëgg sama gars yi naa leen yéen ñëpp bëgg Bob Kassem bëgg gars yi fi nekk yëpp bon LPK la bëgg gars yi teg ko initiative bi xam nga affaire yi nice na aussi tamit gis nañ suñu bopp quoi xam ñëw tey jii nii pour la première fois ñu joué concert xam wane suñu wane suñu talent quoi ma gën a xam big up ok mu nekkoon ñi nga xamante ne moom mooy waa Kunaama Taara gaay ñu ngi leen di bëgg baax baax da ngeen may topp ma beneen gaa beneen animateur beneen wo ok gars ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Tivaouane Peulh comme ni ma leen ko waxee concert u Laye Lodia bi ma daje fi tey sam benn joo sam mu ngi tudd laa mu ngi tudd Amfou Amfou bëgg naa la delloo ziar bir bir Amfou tey ma ñëw fekk la ci nga xamante ne moom mooy concert u Laye Lodia

leen wax Dentale TV ca kaw ca kanam ah yàlla na lépp ñu dem ba fiy dégg ay TFM ay Sen TV ñu leen fay dégg. mooy loolu dama rek nga wax dernier mot lan ngay wax gars nga xam ne ñoom ñoo ñu seetaan à TV. waaw gars yi wax rek mooy loolu waaw seen artiste ñoo fi nekk rek comme si Laye Loja ngi fii mooy loolu noonu ak yeneen ak yeneen ku ci xewlu rek ñu jàppale la teg loxo mooy loolu gars yi gars a jëm kanam quoi parce que Tivaouane Peulh lañ am te naa kenneenyoo haa tuurinnaa kenneefan jee atuma siltaa bugoon aduu senchaa dhugoor atu benni lasi nyaamta nyaalleen jimoom. Heb jij een bokken kolol, ato gugun or Eu son simon lol, baby bom in een boy Manke ul dara giful maru refle ul damit iPhone set le toch on to vakantie park Marseille Du sale sagam tagu jani mongi feren di blok Luaye auto dugu hotel nega guy di nos Papi dem ne besip loli yebu Lidei geen moin gat absam dul sa ham Mu moji sisuru be gale atu kej nopi Nikol go matek sagan dem atu njap tuti Yo trasi lebu sinaj, motel lebu fajar Dajino kofur pabil dono uru meri se ya انه دون وتاقول كيني يا ام دوك دي جوي قول له ما تضيف يالا يلا ضيف يالا ما نسمى دوم تمنا نسمى لك سكيري تمنا Oh yeah, oh yeah, yeah. Hey, eh, eh, hey, yeah. Adubai lolu, lolu bohul. Nigga pull them fofu, yeah. Fofu orulo, adu aju tu, yeah. Aju tu, yeah. I what you do, oh What you do, oh What do, you are to them now Pending you, are to them now Pending fine, are you, are to them now Pending fine, are you, are to them now can they find? I do them, ah, ah, can they know? I do them, ah, can they find? atoo ngi dund naas léegi mooy ci lu ko neex te tourné naa ne sàcc booy dugg ci lu dul jeex ay booy bànni lay àndal ak ñi daw jàng di fo kon mën a gang yàlla du daw pare nekk seen chef mu xëy biir sara si dil bu mag war na gang mi expliqué il faut que lépp maat yow kàmm yoole station bu nekk Cameroun guddi la ñuy xaar atu jëli kenn fi toog di tari li si xaar ñu dugg daaj ji ballu fettel ñëpp wàcc si suuf fësal saa gi dëmbal si kees polisi yi teew am ku ñu jàpp kooku yoole leen ñu jëli leen am ku ñu jàpp ak ku ndiire mu dee atu dem na kenn gisu ko et papam dem na morgue seeti ko waaye gisul koor yow atu dem na waaye bàyyi na si musiba yaa am ne ci guddi budul ma sa am suba ajutu ajutu ajutu mu finally ajutu some see on all mu finally ajutu to down taking a tongue on me ajutu when we no watching a yawn on me ajutu ajutu to mu finally ajutu some see on all mu finally ajutu to down taking a tongue yo yo yo get me on the watch Hey, yo, wey. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. gis nag lañ ko waxtaanee bu may fii ci tey kon respect nekk quoi li ngay gis nii <laughs> Ramboudi ana yóbbu nii lii lii dafa neex booy suñu studio di ko jox dafa neex kon gàcce kalaama studio bi ñuy joobee gàcce kalaama ñuy jàpp si sound yi gàcce kalaama ñuy jàpp si lépp et ça ñu ñu wax DJ boobu wax non ah <laughs> ci la lu ci ala ni gëm

ngeen ji woon ngeen ji woon ngeen ni buub kon ma man ba pare fëkk ma ma defal li ma jàngam ma ma may nag ma ñu ngi ngeen te damay boo say rek sànni na ko ma tuuti tuuti loo ma doo ma di ñàkk jox ko doon ba di ma dàq da sama choc ba si ma boo xelu rek ma ko ñu ni ma ngi ko sama ma ko ma ko ma ko amul I know you do what I do, I'm ready to do it. I didn't do it every year, something I like to do. But you know the pain, you don't know they're gonna do it. I'm gonna get meti meti, you go by it. I'm gonna tell you, who's the damn yeah, I'm gonna die. And I guess I let you put you, I'm gonna do the bar. I'm gonna do it for you, some of my yeah, it's my yeah, it's my yeah. But yeah, boy, I love you. And baby, lady, I'm I'm I'm I'm I'm I'm Kunyaya boys on the wall. Anama day, but I'm kidding my heart. Yaya boys on the wall. I'm doing it on the day. Yaya boys on the wall. But I am dance with them. Yaya boys.

stay tight. I am you to go for a day long. You will make a fool of stay long. When you do, I do double a month the But I'm not in the knowledge with the mental. When I am going to I'm not in the I